dafa nekk loo xamante ne si dëkk bi la bokka waaye ñun day amuñ dara luñ si wax ndig ñoom ñooy dogal ñooy génne ñooy wax lépp loo xamante ne nii moo yelloo ak sartaay réew mi waaye nag su fekkente ne ñoom dañ ne nañ sànni karta ñu xëy suba ne ñoom postpone nañ loolu soo leen gisee loolu tamit nag am na lu tax ñoom ñu war ko postpone waaye kon su boobaa nañ mun wax nit ñi ne lii moo tax ñu jàllale ko si gannaaw ba si kanam waaye soo waxut ay baadoola ne leen ne lii mooy nekk lu war a xew yéen ñi toog si boppi réew mi waxu leen ko nit ñi kon nit ñi duñ mun a xam li xew